Anyways.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 ilaha illallah mbir mi nag nee ñu mu ngi xaw booru vingt heures jóge ci ab werante bu doxoon ki seen diggante ñoom ñaar naka noonu ci la IHC jàppante ak de ñoom ñaar ñu xeexoo ci la de jëlee paaka euh, dal di koy jàmmi a siise euh, ëskëy di koy touché touché bu metti naka noonu ci lañ ko évacué yóbbu ci clinique bu Imam Hassan Cissé mujj ko faa jëlee waat dal di koy jàllale ci hôpital El Hadji Ibrahima Niass ay booru quatre heures du matin nag ci lay siise ñàkk bakkanam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te it yàgg naa koo wax léegi réew mi nag war nañ ko xoolaat waaw ay xale ndaw yoo xam ne bu ñuy xeex ñoxor njaay rek ñu génne paaka mbaa jaasi te li ci gën a doy waar nag mooy xale yi fit ak coxor giñ ci àndal ma ne duñu hésité pour jàmbaa ñu gor moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca Louga tamit doy na waar ab magum éleveur la fa ñaari sàmmkat jàpp sot soto ko dóor ko ay jaasi moom it ba mu jaare fa ñàkk bakkanam woo cey mim réew mbir moomu tamit nee ñu nii la demee éleveur bi di wuyoo ci turu asaw doon mag ci ay aat la juri Y Sow ak S Sow dugg ci ay toolam di ko yàqatee ca wilaas bu ñu naan bonde yara nekk ca kër Mamar Sarr ci noonu la Cheikh Aw Sow dem ci sàmmkat yi doon leen ko kalaame bi mu leen dee laaj lu tax ñu bàyyi seeni jër dugg ci ay toolam di ko ruur ci noonu la ñu waxee ba ay kaddu jóg te nii mujjee tàng ñu xeexoo ay fitna baaxul ci la Y Sow ak S Sow sotee góor gi di Cheikh Aw Sow di ko mooy gor ay jaasi ci bopp bi ak ci loxo bi ay waay mim réew bi ñu koy évacuer hôpital nag ci yoon bi la ñàkkee bakkanam eskay mbir moomu nag mu ginnaa teeri ci loxo yoon ñu ko doon atte ci tribunalu flagrant délit bu Louga moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca Kër Masar romb na doy war ab jigéen lañu fa jàpp violé ko ba noppi faat ko samba boy ñu njort ne ñoo ko def nag te ñu naan Modou Ndiaye jiite leen teg nañu leen loxo góore waay yoon di leen toppee ci wàllum association de malfaiteurs maanaam mbooloom defkatu ñaawteef ak li ñu naan acte de torture wolof naan ko xoñoñol nit ak viol collectif ñu naan ko yàkkataan gu mbooloo def Modou Ndiaye nag tuuma yi tegu ci kawam rëy na ndax nee nañu moo violé ndaw si ba noppi faat ko ay waay soxna suñu violé ba noppi faat ko nag mu ngi wuyoo ci turu NS Lo ñu ngi ko ko defee ci tabax bu ñu dëkkul kooram tamit ci tabax boobu lañ ko fekk ay waay mbir moomu nag ñu ngi ko doon atte ci chambre criminelle boo wattuwul def ko ti ñaawteef yooyu yoon mën na leen a daan ñaar fukki ati kaso mbaa seen giir dundu waay waay ab raykatu nit place am du kaso ray daal ray dong ko fii jëlee moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax marine nationale bu na nag defati nañu jaloore ndax dañoo teg loxo ab bato turki bu defoon drogue bi ñuy woowee cocaïne hëblow ca ndox ya nekk diggante frontière u Sénégal ak Mauritanie waaw góore waay teg nañ ci loxo nag waajoo xam ni ab turc la ab ukrainien ak ab géorgien tegaale ci loxo ñaari Sierra Leone ak ñaari sénégalais waay lii réseau la de ñoom ñëpp ñu defeere leen ca parquet watop turk boobu defoon drogue bi nag nee ñu ma nga bàyyee ko woon ca pey ba te it nee ñu drogue bu sakkana sakkana ci nekkoon trafiquant yooyu tamit nee nañu ba ñu leen piégé dañu dal di jël drogue bi sànni ko ci biir géej gi oh. fi mu ne nag bato bi ma nga ñu képp ca Moldo ca port bu Ndakaaru waaw góore waay xeeti drogue yooyu xam nga ne sama classe du duñ ko fi dugal moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca Fatick nag doy na war sàcc yi fa nekk daal jàkka yeeg jumaa yi la ñu lu fa nekk ñu roñ ko ma ne nag réew mee tardé réew moo xam ne sàcc yi bàyyiwuñu jàkka yi bàyyiwuñu jumaa yi bàyyiwuñu armeel yi bàyyi mim réew waaye fii laa koy yemale mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi yeneen xibaaru buzz